pour wax leen ni ki génne affaire yi coow li bari na lool ñu naan montage du montage télé yi di wax ku ne di wax mais man ki ko def moom bu yow xam ni moom ki def lii ba dugal kii ba siiwal ko nii ba nga xam ne àdduna ñëpp jot ci kooku na xam ni incha allahu rabbi kooku na xam ni dina weeru ci bëccëgu ndara kàmm te lii dina ko layoog sunu borom digganteem mook mbaaju ndax mbon a ngi ci ñëpp ah mbon mi ngi ci kuy dox rek mbon a ngi ci yow. ñun nak fim tolni malay ñu mala ñu tane malay muy pitax ak muy xaj xaj bi gëna yees sax mo gën fim tolni yenn doomu adama yi nga xamni ñi ngi dox ñom jaratul ñuy dox dañ leen wara ray mbaaccu doomi jàmbur la même su fekkee ni moko def mais nit ñaangi def pire nit ñaangi def li mbaaccu di def yalla na ma yalla bal parce que xawma ndax mom la mais même bu dee moom kenn waru ko toroxal ndax doomi jàmbur la tout le monde est responsable nak ma leen koy wax tay gis nga Sénégal ba ci Europe boo ñëwoon fii tey ba gis leen nga nga xeeb nga xeeb ñu mbon gi lu ne ñu ngi koy def Sénégal googu nag ñu nekk noonu Sénégal googu man ku dem wal yi am na ci ay émission yu ma def yoo xam ne dama doon dénoncer yenn affaires yi nit ñi nañu may nit ñi jàmm Sénégal li ko dale ci gouvernement bi laay wax ba wàcc suuf muy ministre yeeg député yeeg yenn post de responsabilité yi ay nit lañ yuñ ko jox yoo xam ne amuñu benn responsabilité yor xaalis xam nga li ma la wax ni di jël xale yu ndaw yi di leen yóbbu ci auberge yi di leen yóbbu fune di leen tàmmal xaalis yàq nañu xale yu jigéen yépp tax nañ ba léegi mais c'est extraordinaire mais les nouvelles technologies ñëpp xamoon nañu dégâts yi mu mën a def te actuellement daf koy def tatu dañ fii ba ba ila yow mi diini appel imo nga di ma gis ma di la gis ngay wane say awra di wane say cër mais loolu tout le monde le fait ah du mbaaco député ministre di ay vidéo ñom ñep lañ def ba ci corps gendarmerie bi police tout le monde ah, il faut que vous arrêtez ngeen di ngeen di sonal nit ñi yeen ñep bonne toll télé vous êtes am part de responsabilité ay TV ay TFM ay lu mu mën da ngeen di jël di c'est des putes des putes déguisées ngeen jël leen ci télé yi dugal leen ci tele yi ñuy wax ay wax yoo xam ni di jël di wane seen sexualité yaama mi ngi nii barki Demba Ndiaye lan moo ko fi dal mu naan xale mu goor bi dafa ñëw tëdd sama kaw la jël di tudd ay Serigne Babacar Sy da ngeen na réew bàyyi leen Serigne Babacar Sy bàyyi Seydi Hadj Malick bàyyi seriñ Touba boo leen defee seen i mbon di giñ ci ñooñu bàyyi leen ci tur tur yooyu ngeen di giñ ci da ngeen di gën a sànku rek nëbb leen seen cër yi te bàyyi seen ans seen taat yu yi ngeen di wane. xamulen ni loolu am loolu li tubam nan on l'utilité on connaît l'utilité des fesses quand on veut s'asseoir ay boy dem toilette ngay xam njariñu taat ak yooyu mais bàyyi leen seen sexualité yi ngeen di woné di utiliser des termes vulgaires buñ len défé liñ len di def ngeen taxaw nan Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy ku toppoon lamu wax do génn ci télé bi bay sol sa jiin yoy diko dangal bañ lay fekk sa biir néeg di la bëgg violer bàyyi leen bàyyi leen jàmbur bi bàyyi leen jàmbur bi bàyyi leen jàmbur bi waaw mbaacoo nag dama lay wax mooy santal yàlla te julli ci yonent bi sallallahu alayhi te xam ni yow fi mu toll nii dañ laa jam tey tey bu fekkoon da bon sax war ngaa baax ndax lii